Papa Gueye papa ñu fekk la ci xar yi ñu bëggoon xam xar yi ndax xarum yar la ndax ndax yow yaa yar xar yi ah yi maa leen yar am yu si bëri yoo xam maa leen yar am na yoo am leen jindi pour jaayaat leen quoi comme catégorie bële mais am na si yu xam fii laa leen yare ci biir kër mais quarante et quelque yëpp yëpp faas nañ ko dafa na ay et quelque mais am yu si dem quoi yooyu fii lañ leen yare ak yii yëpp waaw ah, da ngay am passion ba pare pour toppatoo xar soo bëggul mënoo ko toppatoo kii xëy dem 7 heures matin wàcc 23 heures kooku bëggul xar non mais mën nga liggéey te teewul sa xar da nga leen di toppatoo 7 heures matin 3 heures nga wàcc 3 boo wàccee balaa dara xar yi ngay occupé ba pare boo leen xëyee may ngooñ suba gi heure bii heure naan ndox la nga tegal leen ndox ñu naan waaw am nañu régime waaw gars yi xamuñu ko parce que nga yor xaalis bëgg na naa liggéey xaalis rek parce que jii ñu ci bari fii ñu ngi fi bu seen xar furoon léegi dañuy am problème mais ñun at bi la ñuy nekk at bi yëpp at bi yëpp tabaski ak bu dul tabaski dañuy yar xar xar yi seen vaccin gi xam nañ ko xar bu si nekk lu la dal xam nañ lu koy faj du ñu vétérinaire mais dañu dem ba xam lépp mais comme tey ku yore 3 millions si xar kooku xaalis rek lay gis xar bu teg 25 mu jaay bu teg 30 bi mu jaay mais bu dee ñun déranger wuñu parce que tey jii boo ñëwee dañ lay wax prix normal rek xaru yar ñun duñ ko wanteer yii non non bu dee xaru coggal nag garaawul loolu ci teg ñu jaay la ko amul xar boo jëndee soixante-dix mille ñu la tegee vingt-cinq mille boko tax xari ye xaru yar la xari def nañ fi presque 8 mois yi def fi ay 7 mois yi 6 mois. mais est-ce que ñoom seen egg million. non non non xar yi eggul million. million mom kuko jinde xari yow la neex rek muy laadu mag muy xaru yar ak sa bu loolu mo nga ci am ñaara nak bu day da nga bëgg nak nga bind nak 200 300 mit ay ki farata la man bi gëna ser presque lay bi fi rek lay jaar moy non xar yi seerul xool xar bu mag la noir blanc bi deux cent mille su ma ko si déggee dama koy jaay non am na yu ko parce que bële tëdd ne moo ko xar bële moo ko mais boobu jar na ah, ko waaw. am na yu jar bari nañ. am na yu jar non non non man même sama jaay xar man duma ma jaay coggal non non man bugguma coggal xaru coggal du ma ko jënd du ma ko waxaale waaw ah, mais parce que risque moo si nekk soo ko jindee te indi ko fii nii. xaru coggal fini ni bu tolloo ni bu mag bële soko ko bu ñëwee fi ñaari fan mu jeex boko boo tamit amul avantage waaw xari parce que xaru coggal dañ koy sam rek xop lañuy lek 5 cinq heures la fajar lañuy ñuy fi dox bu tengej ñu yéeg ci garab di leen jox ay xob ñu lek 6 six bo wañé ko nga jox leen ndox mais xari yi repas dañuy lek di jël vaccin mënul bok ci 1 mois am nañ ko fi mi ngi ni resuñu ñu ñu mel lañu mel parce que xaru xar bu ndaw bu toll ni mo ma gënal coggal bu nganda bu toll ne parce que xar bi même bu nekkee xaru yar bu mag bee nekk coggal man du ma ko jënd bii laay jënd parce que boo rayee bii nii lim mu lay jox coggal bu mag bee du la ko jox non non ah, day fees non xam nga c'est-à-dire man ñaanuma yàlla xar manqué damay jaay rek comme par exemple ñi nga xamante ne dañu si duggal seen million pour bëgg xar manqué ñu mun a jaay lu leen neex man tooguma foofu man li ma bëgg mooy jaay samay xar mu jeex parce que man fi nii nii kuy tabaski sax laa gën a mën a jaay kuy jënd di jaayaat parce que kiy tabaski boo ñëwee yërmande bi ma siy def du bokk ak kiy jënd pour dem jaayiwaat. affaire yi moom dara doxagul. Ah. ah affaire yi xaalis bi moom dégg naa la gars yi téye maanaam xaalis xaalis bi maanaam li tax circulé ba nit ñi mën seeti ndax événement dawul mel nii moom ah. soo gisee événement xar yëpp ñi ngi taxaw ah, événement gën a neex daan na gën a neex nii xaw ma nag parce que deux fois face ren dafa ba pare xar yi bari na xar yu baax a fi nekk mais jaay njaay mi demeewul noonu. yow yar la nii. waaw yëpp ay xar yar la. yaa ko doon traité. ñoo koy traité waaw. mais mbaa amoo xari million rek dégg naa temps yi xari million moo xew. non xari million am na ay xari deux cent cinquante mille xari taxu ko seet ndax xari li ñu siy faree amuñu ko si da nga jënd li paas lu nga jënd ko ak fi ngi leen di denc depuis un mois ñu ngi fii comprendre nga fay place bi loué base ah mais da ngay gis client yi ñëw ay quatre-vingt mille lay fay ay cent quinze mille loolu du liggéey da ngay xam ne ñi bëgg na mais yor ñu xaalis quoi mhm. da ngay xam ne ñi bëgg nañ jënd mais yor ñu xaalis waaw ndax instant bi nii xaalis bi moo gënul mhm. ñi nga xam ñoo yor xaalis duñ koo téye comprendre nga dañ koo récupérer ci banque ko seen kër yi. def ko seen coffre-fort non xar yi toggali sax am na dañ ni ñi xam nañ xar comprendre nga xam nañ xar bu baax doole moo yemul buñ ko jëndee ñàkk pexe moo tax jënd ko comprendre nga xar yu baax yi képp kuy dox lu baax nga bëgg da ngay gis client muy waxal sax mu leer na bëgg na ko mais amul xaalis bi te ñun xar dañ fi fere dañuy liñ fi fere si xar duñ ko si amaat waaw loolu moom état moo ñu war a maanaam jàppale jeunesse bi ndax bëgg noo liggéey xam a lii ñun di fanaan fi depuis mois di reyante bëgg nañu liggéey. waaw waaw. Uh-huh. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. Uh-huh. ñu ngi leen di nuyu di leen di sant uh-huh. boo ñi ngeen fi teewee ren yi yàlla yàlla may ngeen teewee fi ay déwéni déwéni déwén yàlla may leen wér ak wérle waaw yàlla jàpp ngeen ñaanal ñu tamit fii suñu xar yi nekk nii xar yi jar tamit waaw waaw lool lool lool ah bon man ça fait 15 ans ba non ça fait 18 maa ngi jaay fii xar xaru yar yi moo fi ëpp moom li fi nekk te boo seetee tamit nga gis ni xar yi foog ni xar yi kii am na sa yoo xam ne jar nañu mais seen borom ñoo amul place boo xam ne mu leen mën a dugal dégg nga loolu moo tax xar yi nekk nii waaw waaw xar yi nekk fii ba léegi nii. da ngay dolliwaat ah, xar wala. damay dolliwaat allah rabi incha allah rabi moom laa ñaan yàlla. waa dama am ay client fixe am naa client boo xam ne gis nga xar bii. client bi ma ko jaay. kooku moom gisul xar bi sax chaque at man maa koy jaay xar saa yu jotee avance tabaskeem daf may jox cent mille bon maa ngi ko jaayee xar bi cent trente mille laa ko jaayee. waa dégg nga mais bu gisul xar bi ba léegi moom waaw. dégg nga bon ah, bon bii maa ngi ko jaay quatre vingt cinq mille bii maa ngi ko jaay quatre vingt mille bon bii mhm. maa ngi ko jaay quatre vingt cinq mille bii quatre vingt quinze mille laa koy jaayee bii quatre vingt cinq mille quatre vingt mille laa koy jaayee. sama télé bii yéen lu jël njaagatu yéen a njaag kii sama télé la. ndax man ñoom du tay ñuy wax Medina sabar boo tëggul du neex dëgg la boo ñëwul du neex dëgg la fekk la ci daral bi kon aatu dafa feeñee ci facette yu bari dëgg la aatu ak xar yi nuñ def waaw aatu ak xar yi moom ñi ma xam ñu bari xam ne ne man yàgg naa xar balaa dara dama koo bëgg ba pare xam di ci liggéey di ci business nag waaw ci race macha allah dañ ciy yëngu quoi. moo waral xar moom am na ñoo xamee ñi ñu xam dëgg bu ñu fekkee ci xar rek du leen bett. du leen bett waaw alors prix xar yi bi. waaw tabaski euh, mu ngi nii xar yaa ngi nii metti na nag quoi xaw na xaalis xaw na ñàkk tuuti. mais sant yàlla bu baax xaw na dëgg tuuti mais macha allah client yi ñu ñëw nànk-nànk. ay clients préférés ñoo xam. waaw waaw man nag man nag yàgg naa ak ay a préférés ñoo xam ne chaque année. Mhm. whatsapp sax lañu gisé gisee seen xar ba jour ji jour wu wa man yoy def euh, vente en ligne def yëfu géwél xam nga géwél ci lu bax lañuy dox té da ngay am yalla dalay boole géer ñu ris géer ñu bax ño xamantene da ngay foto xar mi rek wan len ñu duggal la seen xaalis non mais Dakar instant yeen mag yeen du tay ah. yéen ma ñëk defal direct ci net bi sama anniversaire ngeen ñew defar ba mu bax yeen dal lu ngeen bokul neexul mm. xar yi nak ñu ngi ni machallah allah ñu ngi waaj tabaski bi mm-hmm di profito tamit di baaluwaale ñepp ak di ñaan yalla yalla doli xewal gi ñi nga xamantene kilifa yi amul xar yalla may leen xar barkel njabot gi sunu soxna yi sunu jigéen yi sunu yaay yi yalla may leen guddu fan ak wër ci barki Seydina Mohamed waaw di ñaan nak dewen ma yobu sama yaay mak ci barki sayidina muhammad moy sama sëriñ moy sama sëriñ moy sama lepp jeng beela mi awma xarit awma dara mo fi ne yaay boy je t'aime beaucoup. ñu ngi daal baax ñu leen nuyu bu baax. Mm-hmm. Dakar instant ñu ngi nuyu ñu nuyu téléspectateurs yëpp. ñu mm-hmm. leen bu baax a baax. alors nga yàgg nekk ci li nga xamante ni moo di yarum xar ñu fekk la fii donc ngay def lu am solo opération tabaski donc mën nga ñu wax rek xar yi naka nga familiariser ak ñoom. waaw ginnaaw bu ñu leen nuyoo bu baax ak mbooleem ñi nga xam ne ñu leen di siiw ñoo ngi rafetlu jéego yi nga xam ne def ngeen ko ba agsi fii ci daral gi mm-hmm. fii nag nekk bergerie nga Rassoul ñu nekk ci yëngu ci wàllu xar yi xar yi moom comme ngeen ko xamee rek daanaka euh, ñi nga xam ne ñooy ñoo ciy liggéey dañoo bari dañoo nekk ay catégories yu wute am na ñoo xam ni dañuy def opération rek bu tabaski bi jàllee ñu arrêté am ñoo xam ne nag ay éleveurs lañ yoo xam ni moom xar ñu ci 12 mois sur mel ni sama classe bi am na ci xar yoo xam ne dañ leen di yar daanaka yor leen ay weer yu bari ba ba tabaski bi ñu génne leen am yoo xam ni tamit dañuy dem ci luuma yi. Euh, dem jënd leen waaye ay xar yar la ñuy nekk waaw noonu daal la ñuy dundee ak ñoom. macha allah hmm. est que yorum xar bi metti na toppatoo bi day jël temps wala. waaw xar nag moom yar ko metti na metti na ci benn côté waaye ci beneen côté aussi tamit euh, taxul mu metti lool buñ ne metti na mooy toppatoo bi muy laaj ak ci wàllu dundam surtout côté dund bi parce que ku nekk xam na ni euh, aliment bi cher na. ngooñ aussi gis nga fi mu toll daanaka cher na loolu moom mooy mooy li ci metti waaye li tax ñu naan méttiwul mooy ni ki nga xam ne da koy yar nekk nekk nekk éleveur da ci am bëgg bëgg boobu moo tax saa su nekk moom plaisir bi ci bi nekk ci ci ci digganteem ak jur gi mooy tax du sentir métit bu baax a baax. xar yi de moom ñu ngi nii kii moom daa bokk ci xar yi nga xam ni ci yaroon la bokk ci caatu xar yi moo tax mu moom macha allah mel ni moom yàlla dogal na ni moom jaay nañ ko kii tamit moom ci famille Ladoum yi la bokk. moom it euh, bokk ci xar yi nga xam ni ay laadum lañ waaw ñu tuddee ko mag xumba waaw su ko defee moom it daanaka gars yi ñu ci xaar daal waaye jaragul waaye ci xar yi nga xam ne moom dañoo newoon ci gétt ga moom ci lañ bokk waaw moom bi tamit ci mokkee ay famille lañ moom daanaka ay marak lañ moom it daa bokk ci xar yi nga xam ne dañ leen dañ leen yaroon ci ci ci gétt gi ñoom ñëpp ci xar yar yi lañ bokk voilà prix moom day varié waa kii de moom daanaka taxul ñu cher ko loolu ñu ciy xalaat ay deux cent cinquante mille rek. <laughs> waaw cher la waaw ci xar yu mag yi nga xam ne ñoom it dañ fee nekkoon moo bële ci lañ bokk waaye ñoom it bokk nañ ci xar yi nga xam daanaka. yi jar xanaa. jar na waaw. kii mooy gaynde gaynde la tudd gaynde. Ah, <laughs> man Malick. <laughs>

en fait xaru gens particulièrement de mon cas mais amna ñen ño ñoo ne ñu doole am yenn xar yi loxo jotul motax mais yaakar nañ ni dal tabaski ren bi am ba quoi. dina am mais est-ce que gi ngi parce que ñepp ngi jooy ne ren tabaski bi à da fay do tabaski parce que dëkk bi dafa metti. non tabaski bi na ne tabaski bu gëna pourquoi ci ñaari point la mhm. parce que fin du mois la tombel mhm. xam les salariés vont recevoir leur salaire mhm. par contre. ñenn ñi yoo xam ne dañuy euh, dañuy nànk-nànk di am seen xaalis aussi xam nga mun nañ ko teg fen mais dëkk bi metti na metti boo xam ni am na ñoon ñoo xam avant seen salaire di ko jot sax lépp dañ koy leb ils sont endettés tellement moo tax bu jotee seen xaalis balaa koy def ci tabaski wala fenn dañuy ay bor lañ koy fayee truc du genre affaire yooyu quoi. yow ana xar. ko suñu kër. waaw dañ suñu kër dañuy yar xar quoi mais mais euh, moo ta sànq sama biiru wax maa ngi la doon wax ñoo xam ni dañoo xaw a parce que léegi affaire de système la. Mm-hmm.